dafa amoon yëngu-yëngu yu metti fi biir Dakar. Mhm. tegu mai 68 bi muy am. Mhm. Euh, ñu euh, lakk ay oto taal ay et cetera mhm. surtout biir booru fi nekk léegi la abonné Lamine Gueye booru zone boobu. Euh, gouverneur région de Dakar daa di jël ay mesures mais surtout gouvernement bi daal di génne benn mesure ne du ñu toléré benn rassemblement lu ëpp juróomi nit. sur la voie publique. kon tere yi yàgg na fi dugguleet. déedéet loolu loolu euh, parce que li ñu wax ay état d'urgence yooyu mhm. noonu. yàgg fi am dafa nekk loo xam ne mooy aar démocratie. mok mhm. démocratie and c'est-à-dire mhm. démocratie bu togué ba nga xamné ne ñu koy naxasal wala ñu koy menacer am na ay jumtukaay yo xam bu ko génné dina mëna art aar euh, démocratie donc le jeudi nous mhm. annoncé sur l'ensemble du territoire nous rassemblement nit mhm. ah nit julli Juma de dina ëpp nit mhm. te ci yi lañ koy ak yi bon du julli le 30 mai nous sommes le 30 mai donc kenn du julli Juma, nit ñi ñoo wax le mais jot Medina Baye ñoom pour ñoom dañ dañ jàppoon ne kenn ay wut julli jumaa mais ci suba si takk der yi dañ ñëw wër bayaal bi yëpp bayaal bi nga xam ne moo nekk diggante kër Cheikh al Islam ak jumaa ji taxaw yore seen gànnaay gouverneur ñëw

dóor bal fetal bu kenn dellu gannaaw nañ aar bàyyi muy sa waay jur bu góor noonu le ni ñi jógee ànd ak moom hmm? gunge bàyyi ba ca kii ba ba ca kër ga loolu nag mun nañ wax ne moo tax ñu ne medina bàyyi rek a julli ba su 30 mai 1968 foofu ci Sénégal yëpp ba mu daj. voilà réew mi xamuñu kii yee kii. allahu akbar. Hmm. Sénégal xamuñu kii yee kii. yàgg naa hmm. yàgg naa naa gek. diine. yàgg naa gek. barhamu hmm. baun waraun alifun thumma ha mi mun faydu tijaan jox ñu ñuy